vidéo bii nag bëgg nañ ñëpp ñu teewlu ko bu baax a baax parce que jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am ci RTS depuis nomination ki nga xam ne moom moo di Pape Alé Niang Mame Moussa Niang yëkkati na ay kàddoom di woote manifestation ni ki tey jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne RTS ñu ngi koy dund ci ñaari weer yoo xam ne moom lañ samp directeur bu bees muy Pape Alé Niang ñu teewloondoo ko. maa ngi ñëw di leen woo en tant que coordinateur du collège de ñu mobiliser wu demain incha allah mardi demain mardi incha allah mobilisation exceptionnelle pour faire face aux mesures arbitraires yi nga xam ni le directeur général Pape Alé Niang mi koy jël ci RTS yéen contracteurs yi yéen yi nga xam ne yéenay décisionnaires yi yéen ñi nga xam ne yéenay prestataires yi bu kenn des na ñëpp génn si on va lui barrer la route allah ce mardi 2 juillet ndax mënuñu toog di continuer. mu ne day wàññi salaire yi déjà wax na trésor bi nga xam ne mooy ressources humaines mu changé li nga xam ne mooy budget de salaire yi mënuñu toog cent mille francs yi nga xam ne mooy eh, avance tabaski mu dagg ko mënuñu toog mu coupé ay ligne téléphonique mënuñu toog mu jël ay contracteurs yu def deux ans waroon leen recruter ñëpp mu dàq leen ay techniciens ay cameraman ay journalistes ay ay ay agent administratif ñëpp mu dàq leen en moins de deux mois mu jël ay prestataires yoo xam ne trois cent mille lañ doon fay yóbbu leen ay cent mille francs mënuñu continuer di toog Pape Alé Niang di continuer di yàq kër gi kër gi suñu kër la agent RTS nañu mobiliser wu on va lui faire face on va lui montrer qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures impopulaires mosu leen gis ci benn réew boo xam ne nit day fayu salaire deux mois trois mois de suite après un DG vient pour remettre en cause ses bulletins de salaire naan yóbbu leen ko ministère des finances ñu changé salaire yi on va les faire yoo xam ne bañ la bañ la da nga waroon njëkk xalaat ne dama war a wàññi sama juróom million ba pare doo ko suufee ci agent yi ne leen wàññi leen seen salaire ndax affaire bi affaire de bonne gouvernance mais doo bokk sa juróom million dugal ko sa poche borom deux cent mille trois cent mille nga maa leen di woo mobilisation bi mardi incha allah très tôt toute la bu dee si régions yi les gens se mobilisent avec des brassards rouges wala presse locale incha allah incha allah yàlla dinañu may ndam ndax li ñuy wax yépp ci dëgg te ci gannaaw kàddu yi nga xam ne digloondoo nañ ko mu yëkkati ko moom mii di Mama Moussa Niang ci directeur général bu RTS di Pape Alé te te ki tey ci talaata ji mu woote manifestation boo xam ne képp koo xam ne tey décisionnaire nga wala animateur nga wala animatrice nga wala nga nekk koo xam ne tey da ngay liggéeyee foofule ca bërëb boobee di RTS. daf laa woo pour ñu amal doxum ñaxtu boo xam ne dañuy baare lii di tali yi lan moo ko waral parce que dafa seetlu que ne moom mii di Mama Moussa Niang ne Pape Alé Niang dafa am benn acte boo xam ne mi ngi koy def jamono bi ñu toll nii mu nekk dogal boo xam ne bëgg na koo jël te loolee ñoom ñii di liggéeyee ci RTS d'accorduñ si teewlul bu baax a baax bi nga xam ne tey moom moo yëngal li nga xam ne moom moo di gaal gi jamono bi ñu toll nii ca RTS mooy dogal bi nga xam ne Pape Alé Niang jël na ko pour wàññi li nga xam ne moom moo di salaire yi fii ci Sénégal nag jàpp nañ que ne salaire moom daanaka buñ ko tuddee rek ñu si bari bari dañuy jàpp que ne amatul benn sens ndax néew goo xam ne tey da koy néew beneen bi tamit bala nga siy jot da ngay daw bay bëgg a dee ñoom ñooñee di liggéeyee ca RTS daal di yëkkati seeni kàddu ci kàddu ki nga xam ne moom moo di Mama Moussa di xamle que ne kat moom mii di Pape Alé Niang lim def tegu ko fenn. te nag dinañ dem ak moom ba jusqu'à bout suñuy analyse nag lañ ci bëgg a indi après buñ expliquer information bi nan la demee ba pare ndaxte nag moom Pape Alé dafa xëy rek ne leen dana dagg li nga xam ne moom moo di seeni salaire te dinañ ko couper ci fi nga xam ne rek moom moo di ressource bi maanaam seeni bulletin de salaire ci payoor gi nga xam ne daa nañ ko am kon loolu nekk na loo xam ne tey lu leer nàññi la boobu tamit avant waxoon na leen ne leen avance su tabaski bi daf koy dagg ba taxoon ñu ñaxtu woon ko wante mujjul woon fenn ñi nga xam ne tamit ñoo fa doon liggéey nekk ay décisionnaire ñoom tamit ba jamono bi ñu toll nii seen cas kenn mënagu koo régler bu fekkente ne ligne téléphonique yi tamit moom Pape Alé Niang xam ne woon que ne daf koy dagg yooyu yëpp nekk ay règlement yoo xam ne daf kaa indiwaat pour tegaat ko ci table ji ba delloowaat RTS ni nga xam ne noonu la bindoo woon ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yi fa nekkoon daal ne loolu moom mënuñu koo dégg solo ñun nag ak suñuy analyse est-ce ñoom ñi nga xam ne tey dañoo wax ne salaire bi waruñu koo dagg est-ce que salaire bi Racine Talla tegoon nekk na loo xam ne tey lu logique la loolu la njëkk a poser que question parce que tamit mënuñoo jàpp ay nit ñoo xam ne ñoo bokk benn goj te ñoom ñëpp ñu féete woon wala bokk ñu ci baree bari féete woon ci mouvement présidentiel bi nga xam ne moo fi nekkoon muy président Macky Sall nga xam ne tey koo xam ne salaire u cinquante mille nga waroon a am sax mën nañ la kaa dubleel ba yóbbul la ko cent mille wala ñu yóbbul la ko cent cinquante mille bu fekkente ne woon ne li ngay liggéey nekk na loo xam ne lu ko jar la lépp luñ la fay sa ñaq la loolu yaa ko moom te tamit yelloo nga ko am nga droit nga jël ko tee ko sa fukki loxo ak juróom mais nag bu fekkente ne tey mbir mi demewul noonu maanaam dañ laa joxoon salaire boo xam ne pour neexale la ko moom moo tax wante nekkul sa capacité ci wàllu liggéey nekkul sa wàllu mën man ci wàllu liggéey su boobaa rek dañuy jàpp que ne tey bu pop Alé Niang dikkee xool ba xam ne kii nii kat cent la yellool pour salaire mu jox ko ko dinañ si d'accord ak moom ci côté boobu bu fekkente ne noonu la demee bu demeewul noonu nag dañuy jàpp que ne kon pop Alé moom moo juum ndaxte tamit fii ci Sénégal képp koo xam ne da jug pour daan sa doole liñ ci gën a bëgg moom mooy salaire bi nga xam ne moom lañ la siy fay. kon nag loolu buñ xëyee un bon ñu ne dañ koy wàññi dañuy jàpp que ne problème ak ay jafe-jafe mën naa am te problème yi ak jafe-jafe yooyu nag kenn ñaanalu ko benn doomu Sénégal mu bokk si tamit ci ñi nga xam ne tey wàññi nañ seeni salaire lu ci mënti xew ak lu ci mënti am da ngay gëm que mën nañoo jàpp ne lépp lépp lépp dafa tegu ci benn axe te muy ñoom dañoo nekkoon si jamonoy kii di président Sall comme que loolu moom moo amoon nag. en tout cas daal bu fekkente ne résumé nañ ko dañuy jàpp que ni ñoom jamono bi ñu toll nii bëgg nañoo amal lii di ay manifestation en tout cas saye boo ñu def très attention ndax am na ku nga xam ne ay caaxaan xaju si rawatina nag moom mii nga xam ne combat bi lim ko jaraloon kenn xamul nan la toll bañ tëj ko fi lu ëpp benn yoon kon nag kooku bu dikkee pour réglementer waat affaire yi tegaat lépp si yoon tegaat lépp si axe ku ko si mën a dimbali danga ko see dimbali ku ko si mënta dimbali nag su yeboo nga jéem a xool feneen fan ngay dem pour mën a liggéey ndaxte moom mii di Pape Alé Niang liñ xam si moom képp ko ko nar a bañ boo amul sance mooy sag dàq boo amul sens mooy kenn di nga jóge ci bërëb bi nga xam ne moom moo di rps kon nag képp koo xam ne da nga fay liggéey loolu ñaanaluñ ko kenn parce que buñ sañoon tamit képp kuy liggéey di nga am salaire bu baax képp kuy liggéey di nga mën a nekk ci benn euh, état boo xam ne tey bu normal la normal la ba lépp loo soxla dina la fa fekk sa salaire nekk loo xam te day tax boo xëyee di nga mën a focus ci li nga xam ne loolu nga nekk kon loolu bokkoon na ci li nga xam ne tey moom moo gënoon a fees ñu dikkoon rek pour partager ko ak yéen sur ma chaîne YouTube Partout TV leen di wax ngeen di wéy di abonné saa su nekk jaa ngeen jëf ba beneen dikkaat ak yéen ci yeneeni analyse ci yeneeni jàngat ci yeneeni façon